sëriñ bi maa ngi yëkkati maa ngi yëkkati kaddu nuyoo ak ziar bi jëmee si jëmm ju tedd ji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 ngir jébbali fii ñaari kayit yi nga xam ne da ngeen ko waxtaanoon yow moom fii muy suñu ñaari bërëb yu tedd yi nga xam ne waxoon nga ko da nga bëggoon ñu defar ay titre foncier muy benn bu nekk kër gu mag ci jumaa ji ñu def ko si tuuru Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul beneen bi nga xam ne moo nekk Mbakke xewat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 di ñaan nag su ma gën ko gàttandoog. tawfeex ba lim sëmb lépp. yàlla yombalal ko ko. yàlla defal ko ko. ko ni ko bëggee. yàlla ko sax nu gaa nu kawe njortam. loolu moom eh, li li li mu jëf ci noonu ngir sëñ Tuubaa sax bari na waaye jëf ju mujj ji nag moom moo moo moo moo motal lépp dara gëndu ci sëñ Tuubaa dara gëndu njabootam.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 ndam doole ko ci ndam ko ci barke loolu rek la loolu rek la kon yow maa cant gi nag maa ngi jabog Sëñ Tuubaa képp ku bokk ndax jëf jëf ji tool jëf ji demee noonu jëf ji toll noonu jërëjëf ak sa sa sa yéene ak sa yitte ak sa taxawaay ci ci lépp loo xam ne mi ngi bi loolu yow jiitu ji na yàgg na sama diggante ak yow ci ndax nii nii la ko euh, président sant rek mm, ni nga ko ni nga ko defee ndax fekk na ma xam ci lu jiitu sa sa sa sa taxawaay ak sa yite